jërë ngeen jëf wér gi yaramu Ousmane Sonko moom la l'observateur xëy di waxtaane Ousmane Sonko mu tëdd ci taabal jaaxaan may xatt ji sol seulement bu weexam photo ba be moo nekk ci xët mu njëkk yéenekaay bi journal bi nañu moom Sonko ay mbiram doy na waar ndax bu tayee ñu dégg ne ma ngay grève de faim bu ëllëgee ñu ne def na malaise xëm na ba ma nga réanimation ca ginnaaw ëllëg sa ñu dégg ne mi ngi dans le coma bi ñu may démb nag mooy Ousmane mi ngi ci coma profond kenn ci awakam di maître Ciré Clédor Ly moo ko wax waxam jooje bi gis ci stratégie communication bu yóbbu aw fit ak pression bu teg ci kaw état bi journal bés bi le jour bi ne comment ba tàmbaliwaat na awakam bi ne Ousmane Sonko mi ngi ci comment bu xóot di maître Ciré Clédor Ly bés bi le jour nee nañu def na appel jëme ci président Macky ci kilifa diine yi ak ci communauté internationale bi ci xët mu njëkk journal Tribune moom avocat bi di maître Ciré Clédor Ly di fa wax ne Ousmane Sonko mi ngi ci comment bu tar te bu ñu ci waxul lu nekk mën na caa xew li xew ca Kayaar di gaalug loo gu juróom-ñett di 128 migrants ñoo ne woon ca gaal ga ñaar fukki jigéen ak benn ña ca woon lu ëpp ñeen fukki mineur di ay tuut tànk ña ca woon libération dolli ñu ci ne te du gaalug loo ca googu rek la xitili ca Daxla ndax am na geneen gaal gu déparé woon Kafountine yeboon juróom-benn fukki passager ak benn moom ca Daxla fa la mujj mbir mi mujjee naa yéeme ne source mi nga ñuy wax ni migrants africains yi jaar ci gaal yi ba dugg Espagne ci gaaliloo ci ba wàcc Espagne sursoi ne nañu am na ab gëstu bu wax ne ñu nekk nga ca gis nañu ci ay étudiant gis ci ay infirmier ay ingénieur informatique ba ci benn femme bu ànd ak doomam ju jigéen jël gaal gi ba mu yeggee Espagne ñu laaj ko daane dañoo bëggoon a xarafal doomam ju jigéen ji moo tax mu ànd ak moom daw jël gaal gi ngir ñëw Espagne France bagage yi Léopold Sédar Senghor dañu fa bëggoon teg jaay def ko vente aux enchères le quotidien ci la xëy jënd lépp ñeen fukki objet ak benn la lépp lépp ñu ko doon jaayee téeméeri million ak juróom milliards soleil national nee nañu mooy koppar yi waa FMI fonds monétaire international fas jox Sénégal ni bor les économies ko ëpp na ko xaalis bi waa FMI bëgg a Sénégal ne crédit fii ak at mi di jeex mi ngi ci milliards mission de revue programme économique ak financier bu FMI ñoo rafetlu doxalinu Sénégal ba tax ñu baaxee ko mbaqus lu milliards donte taux de croissance bu Sénégal bi dafa wàcc terewul suñu réew di Sénégal moo gën le taux ci déndub Afrique bi Vox Populi nañu croissance bi ci senegal gong lépp moo ji waaye taxul mu yegg ci fa mu tolloon laata Covid 19 bi ba koppar di Mamadou Moustapha Ba ministre des finances di ñu jox ci xët mu njëkk Vox Populi ñetti raison yi waral jéego yu am solo yi Sénégal def ku def dégg yëral xët mu njëkk Tribune direct ci ñëw soo témoigné ba journal Life ñoom ñëpp xëy na dañu yeggee rëq-rëq yu waa kër Bougane Gueye Dany yi di waa gëm sa bopp nemmeeku ci processus de parrainage bi Tribune nañu bi ñu ko gisee ci lañu ko wax waa direction générale des élections ñoom it ñu nangu erreur yi jooy ndi rëq-rëq yi corrigé ko direct news nañu donte waa direction générale des élections corrigé nañu erreur yi terewul waa gëm sa bopp ñoom ñoo ngi alerté opinion bi opinion di xalaatu étudiant yi ci université Gaston Berger bu Ndar l'observateur xëy na ko taataan jëmee ko ci mesure bu fa am ubbil yéenekaay bi cellule Jamra ba ci université Gaston Berger bu Ndar moo génnee ab fadwa nee jigéen bu takk ay fer mbay bin